ban rôle la man de en 2011 xale bu ndaw laa amaguma woon sax ñaar fukki mais ñaari pneu yu ñu taal nit ñi def édition spéciale aujourd'hui y a des morts encore il faut il faut il faut pas dédramatiser il faut pas banaliser des vies humaines c'est des mais c'est catastrophique on tue des populations comme ça mais duñu ay duñu ay jinax duñu ay duñu ay duñu ay mbut yu ñuy dëgg comme ça. ne dis pas trois morts benn mort la ñu. sax ko am yërmande doo ko dëgg. est-ce que est-ce que presse su tey bi est-ce que moom moo jouewul rôle am wala presse bi amoon à l'époque 2011 est-ce que du amul woon ñoo xam ne dañoo nekkoon dans le projet politique d'un Macky Sall d'un Ousmane Tanor doon mbubawoo seen euh, mbubu journaliste et puis doon acculer le pouvoir de de de de Ablaye Wade mën na nekk parce que yow yaa ma gën a xam. dara ah? ci presse mën naa la ko nangul mën na nekk sax mais. l'un dans l'autre amul benn dëkk buy am manifestation yi am ngor ci fin wu ci ci fin wu koor geeg léegi bakkan root si te nit ñi duñu ko dramatiser amul benn dëkk buy am plus de trois cent détenus parce que y a deux cent cinquante sept à Dakar il y a peu près une cinquantaine à Ziguinchor et il y a une à, euh, plus d'une dizaine à Thiès qui entament une grève de la fin il y plus de quatre cent arrestations ci ay manifestation mais sa mérite des éditions spéciales à n'en plus finir parce que c'est une situation d'exception parce que c'est une situation dramatique alors xam nga loolu nag mooy am na mooy Ousmane Sonko am na presse amul presse am Ousmane Tanor Dieng amoon na presse amul presse Macky Sall amoon na presse bu mu doon ruux l'un dans l'autre non j'ai jamais dit loolu ça mérite non mérite nga may mun a may mun a c'est-à-dire il faut je crois que président waxoon na la ko ci livre solution bi nga ñëwoon poser ay questions yu pertinentes cest bi c'est un pan entier de la société ni ñuy waxee ci secteur yëpp di ko wax ci administration bi naan liggéeyuñu di ko wax ci force de défense et de sécurité di ko wax ci magistrature di wax ci assemblée nationale nga xam ne ñooñu mais c'est une institution di ko wax ci président de la république mais lu tax duñ ko wax ci presse bi ñaareel bi mooy bu ñu koy wax ci presse bi parce que dañu xam ne vitrine la boo xam ne li ñu ci bëgg suñu ko amee wala yegg ci benn niveau bu ñu ko amul à 100 pour sax dëgg yàlla mën nañu valoir beaucoup de satisfaction satisfaction dans l'éducation populaire dans l'information mais mu jouer son rôle d'alerte parce que nag la presse ñun ñoo ko moom ñun sénégalais yi de parce que c'est un service public yow mii booy tijj tey groupe de presse concession dañ lay jox concession mooy ñun ñoo ko moom mais dañ la concéder nga exploiter loolu moo tax ñuy subventionner suñu presse. je lu tax ñun amuñu suñu mot à dire. vous avez votre mot à dire. voilà euh, ci ni presse bi di di di doxee mais reconnaissez aussi que am na lu ñuy dund en deux mille vingt Sénégal mosu ko dund presse bi mosu ko jànkonteel autant ngeen mën a taxaw ngeen ne dafa am une presse qui se tait sur les dérives de Macky Sall autant mën ngeen mën nañu taxaw ñu ne et ça c'est moi actrice de la presse qui le reconnaît ñu ne am na une presse boo xam ne dañoo ñii dañoo choisir seen camp ñii dañoo ñeneen ñi choisir seen camp ba ñi nga xam ne ils décident de rester professionnels on les traite de lâches man mi nekk ci biir loolu man maa koy concédé mais le débat c'est pas autour de la presse bien que dama lay nangul li nga wax ci presse nga ne des éditions ce qui se passe en Ngor dramatique actuellement ñu ngi nekk fi di def émission les jeunes de Ouakam sont en train de se battre avec les les, les gendarmes affaire bi mu ngi def effet de contamination liñ ci war a def ñiñ ko ciy def peut-être que c'est pas assez bu doyul mën nañ ko dolli mais mais mais